ndax yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam laajoon nañ ko kan moy julit neena julit dal moy ko koo julit yep jullit mucc nañu ci mom ci laminam ci loxom bo beugé gàttal rek julit dal moy ku bax dal ko kay julit bo baxé baxal nga dadi bax baax tamit sa digënt ak say dëkkandoo yow yaay jullit ku deful lu mel nii yow xamagoo ba tey sa diine bu la neexee nga jàng téere yëpp nee na comme que doo nitu jàmm ci biir diine lislaam gii nee na ba tey yow xamagoo sa diine yal na yàlla may ñu dégg loolu mu may ñu it ñu xam ko mu may ñu it ñu jëfe ko nee wax ji wax nañu wax yu bari nee na ba ñu tàmbalee wax ba tey kenn du wax ni man de dégguma loo xam ne mun na defar sama diine rajo yaa ngi wax télévision yaa ngi wax imam yaa ngi wax conférence yi ñu ngi wax ziyaare yaa ngi am maggal am na nee na ñëpp dañuy wax ay jullit lañu bu dee ay jullit lañu nag nañu jàppante واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واي واي ولا تفرقوا هاي قال امول بن كير هاي قال من بن كير الله هدر يفو يمبالي سودو نينا من بن كير يالا دو دوغال نيب فرانتي بن نيك جم قال وني دادو نينا بروم كير غي صاح مودول نانغو لول جم قال بروم كير اك نياباتام ييب ني با ني فرانتي بن نيك نينا خمغا لول دسنا li mu bëgg mooy daal kër gi daal di jur ay yeneen kër eh, ñii dëkk fële sanc fële ñii dëkk asleem ñii dëkk gol tàppi ñii dëkk dam waaye nag kenn nakku ne fu mu mun a dem bu mu fàtte nee na bu mu fàtte këru baay bi nag mooy cosaan bi nee na kër baay nag mooy lislaam foo dem ci kër suufi yuy ak lu dul loolu demal nga jëf fa waaye nag bul fàtte al muslimu axul muslimi comme ni suñu doom suñu soppe suñu xarit nga xam ne fa la jeexalee waxam nee na jullit mbokkam mooy jullit comme moom te yàlla nee na mboolem jullit yi ñoo bokk kon nag nañu yéwénal seen diggante gi ñu bëri dañuy wax mboolem li ñëwoon ci l'islam bisu arafa neena ci aj yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moy gu mujju te yit mu don tagoto bi aaya bi wacce ci mom mu al yawma akmaltu lakum dinakum neena daña wax ni bis bobu la lépp mot waye am limu wax neena xam loolu tamit ci la bokku ندفع وخني بيب جلد مقم جلد دفع عرام تي موم بو توري دريت سمبوك جلد يو سالإسلام نينا ديغو باتي ولا ديغنغ سالإسلام وايه دقلو ليون تي الله محمد صلى الله عليه وسلم wa maaluhu e ak alalam nga daal di salfaañe yàq alul sa alalu sa mbokk jullit nee na loolu tamit melokaan yooyu bëri na nee na kuy def loolu nee na na nga xam ne mooy nga yoonu dëgg nee na nag li gën a nekk problème mooy li nga xam ne mooy na këtt na jonn tey mooy wa irduhu deru gor ñi e ci réseaux sociaux yi tiktok yi facebook yi ak yu mel ñoom ñoom àll ji whatsapp ñoom twitter ak yu dul yooyu nee na daal nga tooñ sa mbokk walla nga wax sa mbokk walla sax ñu wax ci keneen te it nga waroon suturaal kooku yow daal nga ne ah comme que daal yegg si na ci man nga koy wesaare ngay lancé ku ne koo amul woon numéro sax nga wut numéro ngir lan na jot ci audio bi walla ci vidéo bi walla ci leneen ak leneen walla nga tëju sa biir néeg yow ci sa jëmmi bopp xam nga boo génnoon ci biti nga wax sax ñaari doomu aadama ne ñu ñëw ñu déglu la kenn du la déglu du sa xam-xam du sa xel du sa jikko nga daal di ju sa néeg nga nekk imam wala nga nekk sëriñ wala nga nekk technicien walla daal nga nekk nekk daal ci mboolem jumtuwaay lu mu mun a doon nga wax daal loo xam ak loo xamul nga daal di koy wesaare nee na nga foog ne lii nga def yàlla du la ko laaj ëllëg ah da koy laaj de.